mbokk yi ànd ak Touba TV Argentine ñu ngi leen di nuyu am nañ mbégte nag euh, nekk fii La Plata di leen présenté koo xam ni yaakaar naa ñi nga xam ni itam dañu mel ni moom yor ay métier dana nekk loo xam ni mën na leen jox benn idée ñu koy encouragé itam di ñaanal ko lii mu def yàlla mu defal ko ci ndam Bàmba mu nekk fii La Plata ubbi plateau atelier di ñëw ay ñëw yi différente xam naa daañu ci ñëw ci kanam Bàmba ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëñ Gora ñu te di la ñaanal jàmm xewal ak sutura te am kontante bu baax a baax ci ñëw bi nga ñëw ci place bi mm-hmm. pour euh, defal ma benn interview ñu ci am mbégte bu baax a baax ok ñi ngi ko tudd léegi mu doon loo xam ni mën naa wax ni tumuranke na fii ci réew mi di Argentine sénégalais boo xam ni ubbi na bitik jëmee ko ci di def loo xam ne mi ngi ko daan def Sénégal mm-hmm. euh, lan moo tax nga def ko ah, li tax ma def ko mooy jàng métier mi am ci expérience ba pare bëgg ko ba ñu ñëwee ci quarantaine bi mu xawoon a difficile lool ci ci ñépp sax waaye ba ma ci xalaatee ba xalaataat ci xam ne comme man maa ngi woon sama métier te suma mag moo ma jàngaloon métier te ba may paasal may tukki tamit li mu mujjoon a wax mooy Eh, boo demee ba xamatoo foo jëm rek na delluwaat ci sa métier mm. eh, ci loolu lañ jubluwaat ci biir quarantaine bi daal di jubluwaat suñu métier di ci dox nànk-nànk ba suñu borom bi dogal ñu ubbi fi ab daara. sa début euh, da nga doon koo xam ne da nga yokkaat sa formation ci ci réew mi gis nañu centre yi itam ñu fi bare pour jàppale ñi nga xam ne dañu bëgg a def formation. Mm-hmm. wala itam danga nga ñëw rek ak expérience bi nga amoon Sénégal li nga jàngoon nga ñëw nga taxawal ko. waaw fii nag ci ci dëkk bi jànguma fi dara nag <coughs> expérience bi ñu ma jàngaloon rek ba ma ñëwee ci biir dëkk bi moom laa appliqué. Mm-hmm. expérience boobu rek laa ñëw rek daat koy appliquer mais dewuma ci centre de formation yi fii di di jàng dara mhm. damaa ñëw rek appliquer li ñu ma doon jàngal mhm. waaw ndaxte ki ma jàngal moom suma mag la suma papa la Issa Gueye borom ko couture ci say wax nekk na lu la bett quoi ci quarantaine bi nga xalaat ni war nañu def dara ci nga ko ci nga ko ci nga ko tàmbali naka nga songe ubbi place am ay quelques matériels waaye day xam ni sunu borom bi moom moo ko dogal mhm. ndax bu ñu nekkee ci biir quarantaine bi dafa am benn suma benn xarit bu jigéen bu ma aal ab machine bu ndaw ma ci doon ñaw ay barbixoo doon ko jaay di ko jaay di ko jaay di di di dajale xaalis di dajale xaalis ci laa dem ba jënd ab machine e, ci kaw loolu ma demaat ba utaat beneen machine e, ñu demaat ba ci biir e, ku ñuy wax Cheikh Gueye di président association bu La Plata defaloon na benn interview boo xam te ni dañ ma ko defaloon jàllale ma ko ci journal yi. Mhm. waa dëkk bi xam li ñuy liggéey lan la. Mhm. après ci lañ gisanteek benn benn maire bi nga xam ne moom moom place bi. mu mhm. mu bind ne carrément moom jël na décision pour jox joxe place bi ci ay yoo xamante ni du yomb du du doon lu lu lu metti daal. mu jàppale la mu jàppale la te boobu tamit maa ngi bëgg pour. ut place nangam nangam mooy lu suñu borom dogal ne dafa war a am rek waaw noon noon noon daal kiiwee mu xool place bi mu neex ma et eh, ma ne dama koy jël waaw. ok ci biir loolu itam ndax nekk na loo xam ni eh, da ko wutal ay ay ay kayit wane ni yow lii sa métier la jàng nga ko man nga ko topp ko daal ba am li ja ba am ay kayit yoo xam ni itam dana promettre nga mën a def lii ba la doon tey nga war a jël matériel Sénégal indi ko fii ak yooyu yëpp ñu xam ni kii war na def loolu. est loolu yaa ci bàyyi xel. waaw loolu maa ngi ciy liggéey ak avocat yi lu baree baree bare mais comme jamono ji dañoo nekk ci quarantaine daanaka lugaar yu bëri ubbi ubbeeguñ pour nga def yenn tramité yeeg xeet yu demee noonu mhm. waaye këyit yooyu yëpp maa ngi ciy waxtaan ak avocat yi nga xamante ni mooy avocat yi de la CREI yi mhm. nga xam ne dañuy jàppale communauté bi bu baree bari maa ngi ciy waxtaan ak ñoom ci wàllum marque bi ci wàllum place bi ci wàllum. uti ay bagages Sénégal di ko indiwaat ci dëkk bi yooyu yëpp maa ngi ci projet yooyu mhm. ndaxte li ma ci mébét mooy lu yaatu nga mhm. xam te ni képp ku nekk ci dëkk bi rek di nga di nga di nga xam li ñuy liggéey lan la mhm. bu loolu jàllee itam kayit yi duñu bu mën nañ ko tudd affaire bi nga xam ne moom la ñu fay fii tey man na promettre nit ki ba ëllëg mu am ci loo xam ni itam. banque mën na ko financer ci li muy def. li ngay def it nekk na loo xam ni lu lu lu taxaw la tey ku ñëw fi gis ñaa ngi say matériel am na foo bëgg a jëm. loolu itam xalaat nga ko ngir banque jàppale la wala dara fii. waaw mais xam jàppale day fekk nga nekk ci yoon bi. Mhm. ku dugg ci biir place bi rek di nga xam ni maa ngi ci yoon bi. Mhm. pour nga ñëw pour jàppale nag loolu lu yomb lay doon. Mhm. mais tubaab si si boppam. am na ñoo xam ne am nañ yéene ji am na ñoo xam ne am nañ bëgg ji mais man maa ngi xaar ubbi naa porté di xaar lépp mm-hmm. ni lépp daa war a ñëw daal. Mm-hmm. ok gis Bamba Africa mu nekk uh, benn signe maanaam ma def ko tuddee logo. Uh, loo ci jublu. waaw comme dama ci doon waxtaan ak ay nit rek. Mm-hmm. ñu may xamal ni ma carrément war naa mën a yor man suma marque bopp. et bi nag boo ko gisee dafa nekk loo xam te lu naturel la. ndaxte Bamba mooy sama tur damaa doon ab africano et designant bi nga xam ne moo nekkee ci kaw nag sama bopp la ak samay bët moom lañ jël dessin na ko nii karaw gi ni mu mel nii et moom lañ def nii nga xam te ni bëri moo nekk nii léegi loolu mooy loolu mooy marque bi. mu xam ne marque mi ngi tudd Bamba Africa. Bamba waaw. sa yéene bi muy yàgg fan mooy sa yéene. mu foog a rek. Mhm. comme yeneen marque yi mel. Mhm. ci ci àdduna bi mu romb foofu. est-ce que itam sécurité nga ko tey ba boo lëggee tey keneen bu ko affiché woon tey wala mu jël ko ba ko utilisé wu nga mën a taxaw di lii loo fayal droit d'auteur la ba tey yàq moom ndax def nga loolu. loolu loolu lépp maanaam pour mu pour mu génn mën nga ne semaine yii di ñëw mën naa génn ndaxte avocat yi jël nañ kër yooyu pour sécuriser ko. ñu ngi ci tramité bi. Mhm. pour sécuriser marque bi ba kenn du ko mën a laal kenn du ko mën a copier. Mhm. ba pare dama koy di ko fayal chaque six mois bu nekk. dañ koy fayal pour loolu mooy sécuriser marque bi. kon mën naa la xamal ne la tramité boobu noonu. maanaam avocat yi ñu ngi ci tramité boobu waaw. loolu jàll itam fii yan nga fi def yan ak yan nga fi liggéey. non fii day mën nañ ne lépp loo xam ne nit da koy sol daal dañ ko fiy liggéey. lu mel ne yéen li ma sol nii lu mel ne ay chemise lu mel ne ay ay taybaas ku ko bëgg lu mel ne ay yëri tubaab yi mbaxane yi. Eh, bëri na lu fiy defar tubay bëri na lu ñu fiy defar loo xamante ni lépp lu nit di sol daal soobee yàlla moom dañ koy defar fii. Eh, ci moment bi ñun sénégalais yi lu ëpp lu ñuy liggéey tey boo demee mën nga wax ni quatre-vingt-dix pour cent yi dañuy yëngu ci wàllu yére. Mhm. ñi ni yëngu. fii lañu ko ñëwee yeneen xeetu réew mën naa tudd bële piano lañ ci gën a miin kër wane yi koy defar loolu itam xalaat la ñuy jaay ci mbedd mi yow nga nañ ci bu baax a baax a baax te tamit dama ci laa sanwaale benn message di xam ne bépp sénégalais boo xam te ne yaa ngi ci biir dëkk bi nekk ab téer wala nga yor ak métier na ci bàyyi xel bu baax a baax ndax ni ko La Plata amee noonu la ko Buenos Aires war a amee yeneen dëkk yi ak yeneen dëkk yi war koo amee ndaxte ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jaay bagage yooyu muy muy péruwaane muy boliviaane ñoom ñooy affaire yi di ko jaay te liñ koy jaayee ci biir ñun ñun sénégalais yiy dem di ko jënd ji mën nañoo defar lu mel wala lu dàq loolu kon tey jii ñun war nañoo mën booloo doon wenn say woo xamante ne nii kenn ku ci nekk di jàppale sa morom ba fi ñu bëgg mu yegg fa mën na faa yegg ba ci ñiy jaay engros sax tey bu fekkee am na concurrence bu nekk suñu diggante ak ñi nga xam te ne ñoo ñooy buñ fi ñaanee di jaay bagage sax kon ñiy jënd engrais di ko jaayaat sax prix bi day gën a yombaat ca ñoom ki koy jënd si tamit day gën a mën a yombaat ci moom te dina ko mën a jaayee prix bu baax kon loolu dafa nekk loo xam te nii lu ñu war a xalaat la mais nekkul ni ci mbedd mi mbedd mi rek lañu war a nekk war nañoo war a war a waat beneen xar-xaru kanam ci dëkk bi kër ñu gën ñu joxaat suñu cër xam ne ñu dañoo yor suñu ay métier ñàkk pexe moo tax ñu nekk ci ay mbedd xam naa li mu saf li wolof di wax ni ko màcc moom moo ko xam <laughs> waaw tey li nga doon tëyeex ñu bari doon nañ koo am ñeneen yoo xam ne ñu ngi def métallique ak leneen indaale ay métier mais ba léegi amaguñu fii ci dugg bi tey yow mënees na jàpp ba ban message ngay nga nga leen di jox ñoom ndax nekk na loo xam ne dangay wax ni nañ ci ñëw daal moo daax la ñu nekkoon waaw mais xam nga tey ji li ëpp solo ci doomu aadama rek mooy gëm-gëm mooy jiitu lépp ni dangay am gëm-gëm xam ne suñu borom noppi na ci lépp démb tey doo koy ñëw man bu ma jëlee décision ne dootuma nekkate ci kaase bi di jaay di damaa jaay sama saak ya ma yoroon ak sama bagage yépp jënd machine xool na ma mën a mën a doxalee ma mën a dem doxalee noonu. kon ki nga xamante ne ni nekkoon na ngaay doon defar ay dàll pourquoi pas mu fee ubbi benn benn benn entreprise pour pour pour defar dàll. ki nga xam ne soudeur métallique la ba ci Ablaye njaay Mesa mi nekk ci dëkk bi war na ubbi ab atelier atelier menuisier Ndeye Assou Thiam ubbi na ab restaurant. ji bi mi ngay def ab YouTube. keneen ak keneen bu defee leneen rek ku ñi nekk ci mbenn mi dina wàññeeku te te tubaab bi dinañ gis beneen xar-xaru kanam ci ñun ceinture yi di gars yi di defar di jaay yëpp ñi doon defar ndàll yi mën nañ ko defar calpe yi mm-hmm. leneen ak leneen bu ko defee ñiy jaay angora nag ñëw di jëndante ak sénégalais mm-hmm. di mën a jaayaat ndaxte fii képp ku fiy jaay li communauté senegal di jënd ci dëkk bi amul beneen xeet bu koy jënd mm-hmm. ñoo ëpp li ñuy jënd ci wàllum yére wàllum dàll wàllum nangam nangam mais bu fekkee ne ñun way nañ ba commencé di defar yooyu noonu kenn ku ci nekk jàppale sa moroom dinañ mën a liggéey suñu biir te fu ñu bëgg egg mën nañ fa egg. ci ñi nga xam dañu dëkk ci dëkk bi naka la ñu gisee li nga def ak maanaam produit yi naka lañ koy consommer ñi ngi ñëw di ko jënd di la commande ay ñëw africain wala. waaw hmm. ñu nekk ci dëkk bi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy jàpp nañ ca war a jàppale. Hmm. tamit tubaab si tamit. tubaab si waaw ci laa jëmoon sax ak li ngay def nga xam ne ay. ñi ngi ñi ñi ngi soxla waaw tubaab si tam ñi ngi répondre bu baax ndaxte lu raar la ndax da yeneen xeet de dañuy ñaw rek pour ay candidat bu bari dem si bikit bi jaay ko waaye dafa raar ci nga yor ab atelier ab tubaab indi tiseem ne la modèle sàngam laa bëgg ndax neexoon na ma te jotatuma bëgg naa koo defaraat nga ñëw ñu defaraataloo ko ci saasi mhm. loolu dafa doon loo xam te ni lu lu lu lu rëy la ci ñoom te tamit mosuñu gis ab ab kiikoo boo xamante ne nii day ubbi ab place am di di di dagg di ñaw xam nga pour ñoom loolu mënut a nekk daal. Mhm. moo tax affaire bi da leen di da dañ koy bëgg mhm. <laughs> waaw. mais matériel bi nga xam moom la ñuy soxla yére yi Sénégal lay jógee naka la lay naka nga ciy jotee. waaw pare am na yoo xam te ni sa famille ñoo la koy mandaar pour mu ñëw am yoo xam ne da ngay gis koo xam te ni day nekk ci dëkk bi yor tisi bi. Mhm. ku jógee Sénégal nga mën ko jënd ci moom indi ko sa place. et publier ko publier ko. ñi si bëgg am na ñoo xam la tissu africain bi laa bëgg modèle sangam wala tissu bi laa bëgg waat modèle sangam. Mhm. ñu mhm. def loo xam ne fi lu dox la muy ay ay pollution nga di ko defar gis nañu sénégalais yi ñu ci sacrifié ñu ci def bu bari di ko jëlee ci yeneen xeet di ko di ko ñaw kon da pour di ko ñaw mën nga ko ñaw sax ñi nga xam ne dañ koy jënd di jaayaat. waaw mhm. comme place bi day ubbeeku pour ñëpp. ki ki war a jënd en pour jaayaat. ak ki nga xamante ne nii day ñëw pour jënd par benn xam nga comme tey jii am na ñoo xamante ne nii ñu ngi war a dem ba capital mhm. tey boo amee koo xamante ni mun na la ko joxee ci biir dëkk bi loolu day gën a yombal liggéey bi mhm. waaw. Mhm. ñu ngi lay xam naa li ñu am ci waxtu ngir euh, dafay interview yi bariwul ndax sa émission bi nga xam ne war na jàll muy la autre mirage seen koy def xam naa sa message bi ñu terminé. waaw sama message bu mujj mooy di. sant ki nga xamante ne ni moom laa àndal ci liggéey bi muy Moussa Diop ndaxte de ba ma demee ba taxawal entreprise bi ba mu war a taxaw dem naa ci moom ko moom magam moom xamaloon ne ma ab tailleur la ma dem ci moom waxtaan ak moom ni ma bëggee ñu liggéeyee ko ba tënk ci ay kàddu ñu ànd di liggéey te wax dëgg yàlla ba nu commencé ak léegi deux mois lañ amagum waaye damay li may seetlu sax mooy moom mooy moom mooy gën a bëgg liggéey bi daanaka bala maa xëy si dinaa ko fekk moom mu xëy si comprendre nga su ma ñëwee dama koy fekk sax ci machine bi. kon loolu daf may daf maa soññiwaat. ni xam ni maanaam ki nga àndal di liggéey bu la yéenee pour ngeen ànd bokk liggéey mu yaatu rek maanaam day day day gën a jëm kanam. léegi nag loolu day doon message ci bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi ci biir dëkk bi nga xool ki nga mën a liggéeyal. ki nga te ni war ngeen a mën a ànd pour def ngeen ànd def pour mën a liggéey li ngeen war a liggéey. Mhm. day gën a day gën a yokkaat ndaxte métier téer lu métier mu xat ndax suñu borom moo ko sàkk def ko si ci te yàlla Idrissa loo ko xata xata xatal day yaatu kon comme ñun ñaar kese ñoo fi nekkagul ñaan naa yàlla yeneen sénégalais yi nga xam ne mën nañ métier bi te nekk ci biir kaase bi affaire bi di gën di màgg ma ci jël kenn kenn ba ñëpp daj loolu man loolu mooy suma yéene ñeneen ñi nga xam te ne am nañ yeneen métier yu ji ma tentaar maanaam ji ma ji ma tante sens xam ne yàlla mooy mooy noppi na ci affaire yi nit ki dafaaw nga dox benn jéego pour yàlla ñëw mën la jàppale mais mënoo toog di di jéem kii ak nangam ndax suñu boroom noppi na ci mbir yi daal bi dafa mënta ñàkk mais nañ koy def ànd ci ak gëm-gëm war tubaab bi ñun ay nit lañ comme ñoom dañoo war a imposer suñu bopp man li may bëgg mooy imposer tubaab si di sol taybaas di daagu ci tali bi ñu xam ne carrément Afrique bi dafay war a saf ajuma waaw nit ñu sol yére yu baax di fi ñëw te te nank-nank maa leen koy forcer bu ñëwee la teere bi waaw dafa dafa baax nangam nangam te ñu ci ñaw la ay rom di ci ñaw la ay teebaas loolu dafa war a fii saf ba ci Sénégal yi na ñoo xam ne fi ne dañuy oote Sénégal leen li ñuy sol fii waaw mais mhm. xam nga kii woote Sénégal la téye ñëw léegi ab téere ngi fi mhm. boo bëggee bàyyi naat ñu ñëwal la ko mhm. boo bëggee xaftaan ñu ñëwal la ko boo bëggee tuba ñu ñëwal boo bëggee njaxas ñu ñëwal la ko léegi la nga doon ñu la nga doon xaalis boo doon yónnee léegi boo ko kiiwee ci dëkk bi day day gën a kii ka yar ka tamit ku mel ne Ndumbe Thiam ak euh, ak ak jon Dione war nañoo ubbi ab salon. war nañoo xool tamit ko xam ne ak watkat la. yaa ngi dégg soudeur métallique bi ministre bi Ablaye Ndiaye Messa ubbi ab kii. Ndeye Assou Diam ubbi na ab restaurant xam nga keneen ak keneen ñi ñi yor métier yi génn ci affaire bi ñu wanaat xar ñu wanaat tubaab bi leneen man tubaab bi damaa bëgg ñu wanaat leen leneen. ñu gis ko xam ne ñun ñii ay nit lañ dañ fee ñëw ngir daan suñu doole dañ ay malade ñuñ dara. mais loolu nag faaw ñu appliqué ko ba pare nekk li ci ëpp solo mooy nga gëm sa bopp wàkkeerlu suñu borom waaw man bu may ñëw ci place bi damaa jaay sama bagage yépp waaw te deux mois rek laa amagum waaye yàlla na saa borom bi xet dolli ba ba mu yaatu ba ñëpp xaj ci na yaatu waaw bu baax na temps bi na du ñàkk ni itam place bi dina gën a màgg incha allah ñu ñëwaat itam a yaatal bu baax ñu waaw sama kàddu yi mu nag di di sant euh, ki nga xamante ni mooy suma mag di Issa Gueye di sama papa nga xamante ni li ma nekk li ma mel nii moo ko def ci man moom ma jàngal métier def li li doon si man daal moo ko def ci moom moom moom maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant suñu jëwriñ euh, Moussa Fall ak Baye Ndaw nga xam ne mooy kilifa dëkk bi ak suñu président association di Cheikh Gueye moom tamit day sonn bu baax ci ci entreprise bi di ci jàpp bu baax waaw ñu ngi siyaar ñëpp daal waaw. <laughs> jaajëf gërëm nañ ci moom bu baax sëñ Bamba Africa la woon ñu gërëm ko bu baax fekkoon ko nag fii ci entreprise bi nga xam ni te moom la taxawal. di def euh, te yaxoor da yàlla muy la am solo ñaan ñaanal yàlla mu gën ko kàttanal yokk ko bu baax jaajëf kontaan nañ ci yow baax jërëjëf. jërëjëf.